seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa sëñ bi Mbàkke ñi ngi lay ziar ñi ngi leen nuyu di la sant ci dalal gi ngeen ñu dalal tey ci biir résidence Cheikhul Khadim bi wax dëgg yàlla duñ ne guléet yàgg nañu ñëw nga ñuy dalal di ñu ñaanal bareen gi yàlla def na nag yàgg naa fi ñëw man sa njaboot sax laa bokk doon fi ànd ak samay kilifa soudanais ba yàlla di def Expresso si dox ba at bi ñu génn ñu tabb ma ma nekk fa directrice générale donc ma sant sunu borom subhanahu wa bu baax a baax sant leen ci tamit ndax xam naa ni yàgg ngeen ci jàpp di sàkku seen ñaan yàlla dimbale ñu mun a eggle mission bi c'est la première fois ñu dénk ko sénégalais donc amuñu beneen euh, li ñuy wax option lu dul rek réussir ñu ngi ciy sàkku ñaan bu baax a baax Mbàkke donc tey suñuy tànk nag fii biir Expresso dañ fi ñëwoon ci weeru koor bi gis si woon euh, xalif bi sëñ Muntaxa Basir Mbàkke eggali ko suñu yéene bi ñu amoon ci Touba jàpp ci liggéey bi ci liggéey sëñ Touba bi ci loo xam ni ñun mooy sunu domaine muy wàllu xarale jëm ci internet jëm ci également wootante seen biir ci équipe yi coordonné liggéey bi jëm ci jumaa ji jëm ci résidence Cheikhul Khadim jëm ci daara Maam Jaara Poroxaan jëm ci université bi Cheikhul xadim ñu bugg ko yaatal tam mu egg ci opito yi incha allah bi loolu amee mu nangul ñu ko liggéey bi tàmbali wax dëgg yàlla waa Touba tamit jàpp ci bu baax sëñ Modou Karam yi sëñ Assane Mbuub ak équipe yi nekk fii yëpp sur place bokk ceeg suñu équipe technique bi ñu farlu ci eggali liggéey bi ba tey loolu moo ñu indiwaat mu tombeek mu tombeek safar gi ñuy jubli màggal donc lépp di taw feex ci ñun ñu ñëw nag di leen sant di leen gërëm ci euh, possibilité bi ngeen ñu may ñu mën a def liggéey bi ba mu egg tey di feddale suñu kóllëre di waxaat ne ñun Expresso Sénégal dëgg la liggéey de moo ñu tax a jóg jaay ay puces ak ay services waaye nag am nañu wàll ci développement économique surtout ci cité religieuse yi Touba da cee bokk te def ñu yitteel donc daal taxaw nañ taxawaay goo xam ne bépp soxla boo xam ne ñun Expresso mun nañ ci taxaw jàpp ci ngir euh, euh, dëkk bii di Touba gën a avancer économiquement ci wàllu xarale euh, on est prêt à gunge leen ci loolu donc di ci sàkku ñaan di la sant di sant sa équipe bi yëpp tamit tey dañu ñëwoon tamit feddale waat rek ndax xam nañ ne ci màggal lañ jëm ñu amoon ay euh, numéro yu ñu jagleel comité organisation bu ko defee ñoom ñuy mun a jokkoo seen biir duñu fay dara loolu lañu defal ñi nekk ci grande mosquée bi dañuy coordonner seen biir di waxante seen biir te duñu fay ñu defal ko tamit ñi nekk ci université bi bëgg ko yaatal ci mairie bi ak euh, hôpitaux yeeg yëpp fépp fu soxla bi euh, yem rek allah. donc tey loolu moo doon suñu yitte ak suñuy tànk Mbàkke Balla di sàkku ñaan di la gërëm di la sant euh, di sàkku ñaan daal soxla nañ ko lool Mbàkke Balla di sàkku ñaan bu baax a baax di joxewaale suñu àddiya ci màggal gi te di la sant di la gërëm ci turu Expresso yëpp incha allah. soxna Fatou Sow euh, di ko nuyu ak mboolem ñi mu àndal ñëpp di la yóbbantam nuyoo ci sa borom kër sëñ Abdou Khadir ndax moom. borom këram su fekkee sëñ Abdou Khadre la woo ko yàgg na fay ñëw loolu di ànd ak ay kilifaam ni mu ko waxee ak mu jot daanaka war naa jege fukki at ba suñ borom yàlla def tey mu teg la ci bopp kër ga kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yaakaar jooju ñu am ci ak gi ba tax ñu dénk la ko yàlla na la ci yàlla defal ndam ba nga am ci lu ëpp li ñuy séntu ci yow di gërëm ñu ngi ànd ak ñëpp nag rawat na suñ doom bopp suñ Modou Kara ci liggéey bi nga xam ne ànd na ko yow ba li ngeen ci am ci ndam ngeen am ko ci ak sëñ Assane Mbuub mi nga xam ne moom jàmbaar la di ku am taxawaay ci yoon wi ak yeneen bokk taalibe bi yëpp di ñaan yi nga xam ne yéen ngeen ko fee def rawatina lu jëm ci Hizbut Tarqiyyah nga xam ne seen diggante yàgg na ñu koy yeesalaat ak li nga def ci université bi loolu lépp sëriñ bi ngeen koy defal ñu ñaan eh, kër gi gën a barkeel bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah